koy tuub bu baax a baax ci kàddu gi nag ndax euh, sunuy kilifa rek ñoo ñoo fi nekk kàddu yi nga xam moom lañ yëkkati sëriñ bi ñu ngi leen koy lu baax a baax ndax ñun xañ na baaxoo ñu wax ndax ku xam caméraman xam ne toujours ci ginnaaw lay nekk waaye nag tey boo gisee kàddu gi ma jël ko nii su ma mag moo nekk nii moom laa moom laa jox waaye ñetti ñetti mbir rek moo tax ma jël kàddu gi ndax euh, jëmm jëmm ji mooy soxna jëmm ak suma mama pend bi siñ Abdou Karim moo ma boole ak ñoom moo tax mooy suma kàddu yi ak sama tànk yi ndax dañoo ñëw ba euh, Madina booba ci liggéey boo xam ne nii Cheikh Abdou Karim daf ko doon def foofa di ko defal kilifaam ñii am na fu leen Cheikh Abdou Karim teg ndax ba fa fañ ko fekk xat na lool waaye daf leen a jox cër sunu tànk yi nag kóllëre googu rek moo ko waral ndax soxna jëmbu de ak euh, mama Penda mi naam si ka ñun Thiès xañ na dañ daan dugg rek génn ci yenn kii waaye tey am na loo xam bu ñu ko fi xamee ginnaaw yàlla ñii ñoo tax ba tey jii may wax nii mën naa ne su ma mënee wax mbir mi dafa am leen lu si aju tey midi 30 ci kanamu ku tedd ki la ma fekk ma ne ko Mbàkke de man da nga def caméraman noobul caméraman yi caméraman yi nekk ci réew adduna bi mën naa ne maay seen noobul ci Cheikh Abdoul Karim moo ma ko def ndax moo ne ma yaay suma caméraman loolu mooy kaddu yi ñii liñ ma jàppe sëñ Abdou Karim a tax ñu jàpp ma waaye nag lépp dañ koo jël delloowaat ko tey dama toog ci kanamam def appel jël vidéo envoyé ko soxna si ne ko nag sa waajaa ngi nii ndax man euh, ku dul ku tedd ki rek wax dëgg yàlla moom ñu ngi tuub bu baax ci kàddu yi nag waaye daal lu lu gudd ak lu gàtt ñii moom jàpp naa leen ngir jëmmi Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fallou soxna jëmm nag jàpp nañ la te duñ la baax incha allahu rabbi maman Penda yow itam lañ waxante woon ca tool ya dégg nga ko dégg naa ko xam naa kaddu yi li des du ma koy jox suma mag moom itam mu sànni ci ay kaddu rek ndax euh, yoon wi mooy doxee noonu kilifa waaw moo tax ñu ngi koy sama ñu ngi tub bu baax di jéglu ci kàddu yi nag. Eh, jërëjëf jërëjëf Ibrahim kàddu yi matal na lépp ndax daanaka mën nañu tënk foofu rek eh, ndax mënewuñ sax wax ci baas waaye nag loolu ndax ku gis na ne nene gi ndax Thierno day sama rek dépp ba ñu jàppee bis bi la ma ko wax. yàlla xam ne xat naa xat goo xam ne sax sama jot ma yuma koon waaye nag damay faral dégg toujours muy tudd soxna jëmb mi si man di doon kenn ci moom loolu mooy suñuy tànk jóge Touba ba fii ànd ak suñu rekk gunge ko ndax sëñ bi moom mi ngi mel bërigoob tiir la rek noo ci somboore noonu nga ciy tooyee ndax yaakaar naa soxna jëmb alal ni mu neexee ak xaalis ni mu neexee nga dajale say xaalis ne da ngay sant Cheikh Mamadou Fadal kooku yaakaar naa ne yombul ci jamono jii boo ko doon wër si ñu mel na yow kon loolu dan la ji sant bu baax a baax di la waxal ne nag sant nga ko mat a sant ndax ñun suñ lépp sëñ Fallu la ndax ñun ñii di waxe yéen sëñ Fallu suñu waajuru goo dafa takk der liggéeyal ko ba am ngërëmam békkit suñu waajuru jigéen jox ko ko tey mu meññ ñu kon kon yaakaar naa ne am nañ ci ab cër ndax foo taxaw ci kër sëñ Fallou tey boo ne Abdou jàngum sëñ Fallou bi ko daan jàng xasida ñu bari xam nañ ko mooy sama waajur kon ñun euh, euh, njëriñu dañ cee bokk waaw kon nag ñi ngi sant mbooloom ñi nga xam ne dañ leen fekk muy kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa jataay bi ak euh, ñii yëkkati njàng mu pësteefu mu neex mi lool ak sëñ bi doon tagg Seydina Mohamed sant nañ leen bu baax a baax gërëm leen bu baax kon soxna jëmb Thierno day neen amee na la cant goo xam ne yàlla rek la koy seddeel ak Cheikh Abdou Karim mi ngeen bokk kon yaakaar naa loolu euh, doon na loo xam ne tey moo ko jëlee Touba ba fii tey ngir feddali kóllëre googu sa diggante ak moom kado bii mu la indil nag xeeb na ko lool bu sañoon wurus la koy ëmbee waaye nag dafay ci feddali kóllëre gum am seen diggante yéen ñaar boo xam ne yàlla rek la koy seedeel di ñaan yàlla mu gën a yokk ba paase fii kon sant na leen bu baax a baax kon kàddu yi ñu koy wàcc foofu rek di sant bu baax a baax a baax kon nag kado bi moom la ñuy dajj noonu bi nga xam ne moom la indi soxna jëmb suñ Cerno Fay mii nga xam mooy cameraman Abdou Karim indil ko ko waaw kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax kon nag na sa lépp jàkk mm-hmm. jërëjëf ah jëmb waaw kon nag waaw ah. yëkkati leen ko ci kaw yii ñu la dugal dong la yëpp waaw baayu baayu baay baayu baayu baay soxna jëmb càmm mu baay karim ku sopp Cheikh Abdou Karim Mbàkke na ñëpp def ni ñu màggal borom makaarimal axlaax sëñ fallu baayu mbeen sëriñ fallu maamam sërif la sirifun bun sirifun sirifun bun sirifun sirifun tuma jublu la sëriñ Fallu du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu may la nga giigal sëriñ Fallu xam nañu la ana Muhammadul Muxtaaru maa la koy yow Seexuna Fallu yaa moom yëfi may ma ci laam ku sopp sëriñ Fallu Mbàkke jugal taxaw ca kaw màggal sëriñ Fallu Mbàkke bàyyi Seex Abdou Karim baayu Seex Abdul Karim borom makaarimal axlaaq sunu jëmm jàmm yaa doy noo bàyyi Karim naaru ma awa fay Seex Abdul Karim Mbàkke Seex Abdul Karim sawaay du ñeewaayu keneen sawaay nu xàcc dem feneen desu la gëm di gëm leneen sa diina doy na xarnu bi sëñ Fallu bàyyu meen ah sëñ Fallu bàyyi mel bàyyi Cheikh Abdoul Karim borom makaarimal axlaaq ah ñu ngi jéglu bu baax